Colle dafa teggi natam jox jëkkëram Colle dafa teggi natam jox jëkkëram fay ci courant fay ci luyaas fay ci ndox faju ci raja dafa réew a set waaye gis nga ruq bële la ma fa daj la ma fa loqotee lépp wax naa leen nan koy bale ndax fi mu ne ay ganaar laa fi bëgg def te ganaar yi buñ ko fi nii nii baaxul li baaxul ci ganaar baaxul waay nan koy gën di bale di ko di ko di ko naan leeñ waaye ak gétt dañ koy leeñ leeñ mu baax dañ koy defar léeg-léeg nga gas kàmb ci suuf du bàq bu tooy boobu noonu nga jël sëkk ci biir maasale ko bu ko defee loolu sax day dundal jur gi dafa bokk ci liy dundal jur gi waaye waxuma xont ak joxib kii ne loolu yooyu dafa bokk ci liggéeyu kër dafa bokk ci liggéeyu kër kër bu amee ak jur foog mu am toppatoo bu set sinon rek kër ga dana yàqu ne xoolal xoolal jonkani béy xoolal kër gi foo dugg rek jonkani béy la kanaara yi dañuy wàcc fële wàcc fële perong bi kanaara yi perong bi yëpp yàq nañ ko perong bi yëpp kanaara yi yàq nañ ko ah te damay wax bay bëgg a damay wax bay bëgg a dee xët yi léeg-léeg man la xët yi bu leen di bàyyi nuy génn bu leen di bàyyi nuy génn bari ki dem boo njaay génn naa fii jëmaw xew sol lu weex ci ñoom xët yi xam naa dan maa xàmmee ci sama ndodd wi la taxaw ah tuur ma dugg ba tuur dugg ba sama yere ba yàqu te loolu baaxul loolu baaxul loolu baaxul eh. damaa ngi nii man am problème nii ngàmm nii fi mu te tabaskee ngi nii di ñëw te fi ne kër gi bu ma reyulum xar dinaa am problème man damaa xamul nu may def ak bëy rek ba war cee mën a amum xar man daal loolu moom te moonte de ñaari bëy yii ñaari ndaw yi mooleen leen yóbbuwoon te senegal Sénégal Sénégal lépp am na fi yii war naa leen a mën a dugalante am cim xar ndax fi mu ne fim mu ne boo demee Colobane gële am na fa marché dugalante waaw léeg-léeg tubaarkàlla boo bëggee jabar sax léeg-léeg mag ñi dañ lay seetlu ba xam am nga aawam déet boo amul aawa doo am ñaareel ndax boo amul aawa dañ naan kii mënta yor jabar <laughs> te loolu lépp ay xeeti dugalante la rek fi mu ne nii oto yii fi mu ne nii boo amul car rapide doo amul biis foo dugalee car fi mu ne booy wuti biis tay ca tataaya dañ naan la foog nga am carte grise sub car rapide booy wuti taxi ñu ne la carte grise sub kalandoo loolu dugalante la loolu xalaat la man daal xaare yii danaa leen jël bu ko defee yóbbu leen kolobaan ca marché dugalante ba ca maquette ba bu ko defee ñaari bëy yi war naa cee mën a amum kuy waaw ñaar yi jarul ngeen may xool da ngeen dem de waaw bëgg naa yéen nag bëgg naa bëggoon naa ñam seen yaram wii waaw ba xam lu muy saf waaye nag tabaski la te xar da ca gën waaw moom bu yeboo daal ma def noonu xaaral rek man daal naa dallu ba ci kanam bu ma dalloo tuuti ba añ ba naan bu ko defee ma daal leen di yewi yóbbu noonu ni laay def. dugal lu neex ay dugal yu béy génnee xar mu ne gawsu gawsu gaw looy looy koy waxal ah loo da ngay wax ah nee naa ba taay bàyyi sa nguñum nguñum gii nit bu naree lu jub du nguñum nguñum day wax ca kaw day wax ca kaw. booy wax waxal ca kaw boo mënta wax ca kaw nga tëj sa ngàmmiñ gi dégg nga baax nii rek ngeen di def tux nga boona tuxoo boon tux yàmbaa tux yàmbaa ba nuróotoo nit sa bakkan baa ngi ni mel na besoin maa nga fee buy ma xëccal baraada bee kaas yi léegi nga defaral ma war gaawal tuuti waa xal bu ngeen bàyyiwul tuxum yàmbaa mu bon mi ngeen billaay baax na cim gaawal tuuti gaawal gaawal faransa nday di yakkaañ gaawal nga ñëw tegal ma lawal ma naan. nga boo leen jàpp loolu tabaski ngay wax ay waxi xaar xam ku lay dugalal tabaski bii di jël ay bëy yow xam nga ne bu la leeree ne ren bëy ngay tabaskee danga ngaa bëri wax ku bëri wax tabaskee bëy di joo xam ne day wax di la tuufli ba nga tawte hmm? bëy nga jéem si jàpp xool noo ko tabaskee ragal sa jabar ragal sa jabar bay bëgg a dee lu sa jabar wax rek nga ne bongo hmm? Colobane <laughs> dem fa di dugali béy nga xool wala mooy tout temps da noonu la hmm. ñëw rek wala dafa natam jox jëkkëram fay ci courant fay ci luyaas fay ci ndox faju ci raja dafa réew a réew a réew a réew a réew a ba nof yaay sa yéel hmm, yi. yéel yi kay man kay akamaanam mu pédicure ak manicure. ah ana jaay nag pédicure. amatuma jot bi ak ba ba pare jël karité diw ci solal may kawas. Oh, mu fanaan noonu yi loolu baax na ci tànk da koy nooyal. loolu baax na ci tànk relation xale la yooyu. ah xale kay kii yee ko bëgg tubaarkàlla. ay la ay la la. Hmm, hmm. gawsu war nga waa ngi yéex di. ngi yax de te gaw sumi de kolle hmm. <laughs> gaw sumi de tuwarkal dama yàlla baal te jéggal ma waaye hmm. xam naa bu doon jigéen dama naan na wut kondaane hmm. di denc ci weccat pour en cas buñ ko dee may jëkkër mu jàppalee ko jëkkër ja <laughs> ni gaw su ñaaw nga lool waaye di jaay léeg-léeg man mu ne ŋàmm léeg-léeg ma yeewu fajar ne ŋàmm yem ci moom damay tiit sax baadu te bu dee sooga yow day firi bakkani mu mel na poosi caay ni ko nga ngi nii rek <laughs> bu ko defee <laughs> ma ne hmm, eh, eh, eh, ah. ko billaay gaw su yaa ñaaw waay te nuru ko sa yaay de nuru woo ko sa yaay ay nday ay ca taar ba nday ja bi seeka nday ja bi muy soog a juddu nekk gone benn sikku dong la moo doon bañ ba bëñ baa ne woon sa liggéey ci biti na ko keti mbaam waaye dañ koo dajji dañ koo dajji pooseel ko defal ko booba sikku la amoon moom daañ ño waaye gaw sooñ y waaye xale bu ñaaw bi liggéey na lool <laughs> Nday mooy Ndiaye. Ndiaye jafe niru. waa Gosu. Hmm? Gosu la nga ñoom nga ñoom nii rek. ci ak mu doon tontu tontu suuf. lu mu tontu. loo wax yow. ah moom kay laay laaj tax ma dégg ma lu ma wax. Hmm. Gosu yow laay xam. Mpañ mënta ne wax ma leen de. ah wax nga kay. ay eh, te mu ne golo <laughs> golo de ñaawul Ndiaye jële niru. mu ne. mu ne. mu ne lan. di jaay de góosu mën na tontu. góosu mii loo tontu ah. ma naanu ma laa wax nga naan ma kaasu ataaya loo tontu di jaay nag yow tamit rek. du sama warga ku moom warga weeg suukar. waaye affaire de mbalak da ah, sa nijaay nga naan dama dama nuru golo. dama nuru golo ma. ah déedéet déedéet. kon la da ngaa gis ci man lenn ah, ngolo. ah bu doon doon góor dinaa seeg yow. ah <laughs> yàlla tere moom war naa toog nii kon naan ma nijaay da ngay nuru gor ah waaye ambiance nijaay ambiance la loolu kenn na ko fa <laughs> na jàkk sa nijaay koo xam ne moo namp jox sa ndey mu namp nga ne ko jàkk xool ba seppali ko naan ko da ngay nuru gor rafetul eh rafetul loolu war na ma ko loolu boo ko defetee doo reer ah. Ah? ma bu ma xamadi mu ne ngam ngam ma mag sikki moom bu débordé bi doxet gu bon gi. ay di jaay bàyyi waaw baal sa mer gi nag bul boo mer rek. bucc sutu yi dara waaye. war na maa xool naan ma da ngay golo du woo ko mel na man damay groupe groupe ci garab yi mango yi yey mango déedéet déedéet wala ci tool yi banaana yi déedéet loolu mooy la daal yaa tere ah xam bu ma dee golo say ay golo la ay ay ma mani mani mani maa nàmp yaayam mu nàmp bu ma dee golo bu ma nee bëxër ñett bu ma nee yet wir yaayam ne fër ñu wir ay dijaay bal dugg si détail jox ko ataaya jox ko mu naan jox ko naan bi lu naan lu tax ngeen koy teg ah yow ma fay yaa ma ko xiimal eh yaa ma ko xiimal papa yaa ma ko xiimal ana ana amul jom amul jom waa ma te information laa fi indaale chaque jour information. nee bi man damay bref parce que taay ni ma soxla dafa baax yow kër gu nekk man maa fiy joxe information donc il faut que ma attentivement parce que information bi seen wërsëg moo si nekk une minute de silence. information bi xam nga la la. mooy kii boutique mbalay xaw ma mbalay la tudd xaw ma sa lay mooy kooku noonu. Mayib ma naan mbon lay sax <laughs> imaam bi moom ko doon daa juum di Mayib boobu daa dëng sax dafa compliqué wax Mayib euh, dafa am du association. waaye gaw su naan ma golo damaa nuru golo kon. waaye di bàyyi sa xuloo kii dafa. mais lu tax mu ma koy wax. bal liggéey nag kon yow damaa war a ba tey nag waaye ah. xam nga ni boo demoon parc aan toog ak golo yi daal di fotow boo ñëwee wan ñu yow yaa si kan duñ la duñ la xàmme nag da ngaa xaw a ndur ak moom pa golo. <laughs> Ndiaye bu ko déglu kii dafa réew. xaaral ma continuer information bi léegi nee na information bi xam nga lan la nee na boo indee vingt cinq mille maanaam juróomu junni nga jënd produit ba mu mat vingt cinq mille. Hmm. lay jox benn ticket boo xamante ni tirage la. léegi nag boo dugalee si ticket boo bu sa tirage bu génnee boo gañee dañ lay jox xaru. ah laadum bu ngande. man fenn ma de barki. mi ngi du euh, euh, euh, kii mii. ba tey sa lay ma lay. ma lay mii ma ma yib ma yib ma yib. tur benn. ah ni li ngay xéewale ngoog de juróomi junni rek li ngay jógal liggéenti juróomi junni ndaxte moom xam nañu dèjà buñ fa demee moom fan laaj ma ne fu may jëlee juróomi junni waa liggéey foo ko dul jëlee ah, dama ko fa wax ah, indi léegi yow demal ah, man nga ne waaw li ma fi indi nga saako nga man damaa yor juróomi junni fan laa koy jëlee foo ko yoroon jëndee ko sobleeg pomme de terre ñu rey sunu bëy yi nga jox ñu ko liggéenti ko eh. ñu yóbbu ko fee jëli xar mi man yoruma juróomi junni waaw paa golo paa golo yàgg ngaa mbaraan paa golo yàgg mbaraan dama wuti ji vingt cinq mille wala sax am naa am naa idée moom moom am naa idée gis nga bëy yi ñetti bëy yi nga jënd ah moom ngay jaay boo ko jaay jaay loolu dina mat vingt cinq mille lotori hmm. ah mën na ko de ñu def tirage a paa golo la de loolu de mooy mooy la waaj a defoon yeewum xar xar ma dem ba xiif bay bëgg dee yorul lu mu ko xonte mu dem jaay xar ma jënd saako ngooñ indi samp. kan lay xam man danaa jëm jaay bëy naan maa nga cay dem di loterie pour jënd xarum tabaski léegi bu ma pertee nag. ah waaw ma ni nag man je ne risque rien. tu nag. waaw ah, baax na par A mhm. maa ngi soog a ànd ak nag tey ci li wax. ah. waxi dof. kole dafa teggi natam jox jëkkëram kole dafa teggi natam jox jëkkëram fay ci courant fay ci luyaas fay ci ndox faju ci rajo naa ne da ngeen am melokaan. lu ñaaw loo xamante ne. xamoo la bëgg a ne ku ma jaxaani xëy ba paase xëy waay. man dama indi problème. lii yëpp yaa ko teg sa bopp. les dofs de la scène vous reviennent plus fous que jamais le trio magique le trio de choc qui explose les réseaux sociaux trois véritables phénomènes les meilleurs de leur génération les maestros les plus puissants de la comédie vous reviennent dans Kër Saner. les docs de la scène les plus fous de l'espace théâtral sénégalais cey fu ñu jëm cey fu ñu jëm ak Saner ak Mbandumbe ak Saner ak Ñanku le golden boy du théâtre sénégalais kan moo gën a dof ci ñett ñi à suivre dans spécial Tabaski sur Sénégal 7. Diop maa ko wax Diop na yow Diop kaay teemaa na yow. ci buntu bi. doo ko fi nelawee la dem na yow Diop. na papa ja. wala sax balaa paa di ñëw. Mhm. nañu rey xar bi ba pare parce que jël. ban xar nga wax. Diop xar ko ko fi ma toj sa waay. eh Diop yow. wii ma jaamite yooyu yëpp day dudd da ngay dudd wax di den nañ yet ngi yaay den nañ. jaamite bàyyi nay may dootee yi ni yaay den dama koo dagg de. lu tax lu lekk dugub ma ne dañoo lekk dugub laa wax. dafa gën ñu lekk dugub moo leen gën fuuf boo ko joxee dugub bi ma la. lu leer naa la wax. reyal dégg ma la wax rek daal xar du lekk dugub. dinaa ko xanaa tey nga bëgg a topp doo xar mi. Modou Lo quatorzième victoire Modou Lo am col la am col la am col am col daan na ma. xar mi li ko dese ci dund. Hmm. fii ak trois mois. Hmm. su bruit duggaatee ci noppam lu bari mën na dee ko. oh balaa moo dee ñu rey ko. ñu rey la yow. xayam mi daa mel ni sacrifice te yee na ni ma teema ko nii noo ko defee. boobu nga wax ni. Eh. Eh. kii. kor joor jenge. kor joor jenge moom. léegi maa ngi baax. waaw noppi leen noppi leen. sunu cosaan doy na tan doy na. fi ma tër bu delloo sama wax ma des la nga dem. Eh! jaa taa yéen ma paan bi tan waaw xaar bi moom bu ñu ko sàngee duñ ko gaaw a dugal dañ koy bàyyi si mbedd bi waaw ñu xam ne am na xar kon yëpp xam ne ñun nag am na xar waaw tey tabaski ren moom day day neex day day neex jàppal eh ñu sama day tamit tey tamit tey nii na ma yéene bandi yow dogale ka tam ba ma ne ma def ma def la fi kaj tool yi. doyul doyul doyul doyul wax bi na de wax bi na de. ndax xay mi. waaw. yow tey yaay sëyam sa yaay. tat bay ma la bay ma tat bay ma. sëriñ mu jël sama yaay ñoo ko def maa koy fay bu tooba yaay. Oh. waaw tey. tey dugg mag dugg si na. monsieur ak madame. sëyam et eh, puis nga taxaw ci mbir bi nga nga wax ah Fallou Diop ñoo Fallou Diop mu yor kar bi mu yar kar bi mu yor kar bi mu yar kar bi mu yor kar bi waaye xam naa bay day xam papa yi xam nga ran ko dem bay ko xam ba rek waaw bay na bay bay Diop da nga rew yaa ngi xaru de ne du fi yett eh, xam du fi yett xar bi du fi yett ah bi du lekk sañ la way bi nga mel ni xar mu yow eh dama lay rey ma ne xar mi day xar mi rek kay am droit lekk ci biir kër gi boo leen bëggee leen xar mi day lekk. tabaski ren gi man dem seeti vaar Sénégal set foofu la.